asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy amati mbégte comme chaque àllarba mercredi pour ñu dégg wolof eh, indi leen seen émission entre deux entre deux nag tey Momar euh, bi ma si ànd ak sama naataango Momar Jong di nuyu téléspectateurs yi mais Momar euh, boo nuyoo ba pare gis nga tey moom innovation la ñu def par rapport à l'invité qu'on a aujourd'hui waaw euh, comme ni ñu ko defee woon bi passé rek. Mhm. xam nga comme dañ nekk ci pré campagne. Mhm. CNRA génne bataaxal. ni bëggul ñu def propagande politique moo waral buñ ko seetloo bu baax la semaine dernière ñi ngi fi amoon mu Ndiaye siise te it ñu am invité boo xam ni am na profil mu xaw a méngoog bosam c'est loolu moo waral bu ci kanamee xam naa boo ko dugalee dinañ xam lu tax ñu taamu ko dëgg la leneen li ci des itam maa ngi nuyu ñi seetaan dëgg di am contentement comme toujours rek bokk ak yow jotaay bi merci Momar donc tey comme ni ko Momar waxee ñu am plaisir la accueillir Léopold Wade monsieur Léopold Wade spécialiste la en décentralisation et en gouvernance territoriale loolu dégg la nekk na nekkoon na directeur général euh, d'AGAT AGAT mi nga xamee ni mooy euh, direction de l'administration du territoire pendant de longues années nekk également nekkoon gouverneur mais yooyu yëpp nañ si ñëw mais am na un aspect également très important parce que dafa impliqué wu ci les activités de l'église et de la communauté chrétienne loolu je crois que aspect la boo xam ne tey dañ ci dugg bu baax moo tax tey donc ñu indi leen gan gu gan googu Léopold Wade monsieur le directeur ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. Mm-hmm. donc euh, di gërëm également honorable Hélène bi nga xamee nii moo ñu orienté ci moom nga xamee nii euh, dafa ñuy jàpp lu bëri donc bi ñu ko waxee profil bi ñu soxla par rapport aux activités de la communauté chrétienne par rapport quand même à l'administration mën nañu ah vous pouvez pas avoir meilleur invité que monsieur Wade donc maa ngi koy wax léegi pendant 30 ans il wala il a été haut fonctionnaire de l'administration Dagaat wax naa leen ni dirigé na ko pendant de longues années mais surtout nag nekk na également école nationale d' administration de la et de magistrature ENAM foofu la la génne ba léegi sax il continue à donner des cours foofu ENAM et puis université Saint-Louis université bu Dakar donc xam na ni dëkk bi di doxee d'ailleurs sax bi mu demee euh, génnee sax ci administration bi mais terewul day joxe xalaatam surtout suuf si ni mu bindoo le foncier tout ça yooyu yëpp nañ ci waxtaan mm. mais euh, dañuy fàttali également dafa amoon benn lettre boo xam ne les évêques dañ ko bindoon en 1994. tout à fait dëgg bi ñu ko bindee nag euh, weer yi ñu génn juin bii rek 2021 euh, ñoom dañoo daje nga xam ne dañoo invité woon 2021 bi. Mm. invité ay musulmans invité ñu bëri ñu waxtaan ci église bi ni muy doxee ba nga xam ne daanaka conclusion yi sax joxaguñ ko évêques yi leen yónni woon waaye ñun tey dinañu ci may tuuti. loolu c'est important comme également veillu Noël la ñu nekk c'est important euh, fii Sénégal ni mu bindoo jullit yi ak ak. ak euh, ak ak chrétiens yi ni ñuy doxee tout ça c'est important ñu toog daal ci waxtaan. moo tax tey donc c'est un grand plaisir honneur. ñu am ko pour ñu waxtaan je crois que dañuy tàmbali ak euh, lettre bi nga xamee ni euh, waxtaan ngeen ci à Thiès le forum bi ngeen organisé. Hmm. pour jàngat église bi nga xamee ni vingt cinq ans de l'église 1994 la am 25 ans ngeen jàngat ko en 2021 lan ngeen seetlu. Euh, ni mu bindoo église bi ak lan ngeen xalaat ni kat war ngeen ko mën a doxal pour mu gën a pour mu gën a avancer. en fait damay njëkk euh, sant leen ci invitation bi. Hmm. du nuyoo téléspectateur 2STV. Hmm. ak seen responsable yi. di nuyu suma jigéen Hélène Tine suma mbokk la suma xarit la honorable bokk nañu lu bare di nuyu mbooloom mboolem koo xam ne xam naa ko ñu bokk ci liggéey bi mbaa fa ñu dëkk mbaa diine bi di nuyu suñu kilifa diine église catholique yëpp eh, comme ni nga ko waxee eh, daanaka damaa am tànk ci lu bare ndax eh, lu toll ni fanweeri at ak ñett def naa ko ci administration territorial nekk naa fi sous-préfet fukki at ak benn. nekk naa préfet fukki at ak benn nekk gouverneur juróom-ñaari at. nekk directeur général de l'administration territoriale ñeenti at. balaa may retraité sax. Mhm. duggoon naa ci mbiru jàngale. alors ci biir loolu euh, ñu dellu ci 1994. Mhm. Euh, euh, lan moo xewoon 1994 ba mu jaral ñu. vingt cinq ans yi ñu taxaw ne nañu delluwaat gëstuwaat la xewoon 1994 eh, évêque Sénégal yi bu ngeen fàttale ko 1994 ñu ngi génn ci ay jafe-jafe yu bare hmm. sécheresse bi amoon na fi crise économique amoon na fi dévaluation amoon na fi hmm. problème politique yi bu ngeen fàttale ko 88 93 hmm. 93 assassinat maître Babacar voilà ba 94 boobu. ba 94 six policiers ñu ne si juróom benn policier. Mm-hmm. jafe-jafe yooyu taxoon na ba Sénégal yëngu. Mm-hmm. te suñu njiit bépp njiit. bu sa sa njaboot yëngoo war ngaa wax. Mm-hmm. ndax dalal seen seen xel. lettre boobu évêque yi génne woon jëmuloon ci catholique yi dong parce que boo ko xoolee dañ ko bind catholique yi ak tous les citoyens sénégalais. ak même ñi ñi bokk bitim réew te nekk ci ñun. lettre boobu bu ma ko tënkee. dañoo seetlu woon ne boo jëlee politique économique social religieux réew mi tolloon na ci jamono joo xam ne. yëngu woon na. moo taxoon ñu bind. te bu ñu tënkee la nekkoon ci lettre bi ba ñu gëstu xoolee loolu yëpp dañoo wax ne sénégalais yi dañoo war a tuub. tuub du changer jën ak diine waaye. Euh, reconversion sociale. maanaam ñu gis ne lañ doon def am na luñ ci manqué lu ci manqué ku ci nekk fas yéenee wëlbatiku di def loo xam ne méngoo na ak li société bi. maanaam introspection. introspection waaw ils ont appelé la reconversion sociale. waaw alors reconversion sociale boobu. am na lu bari lu nekkoon ci biir. ñu nag bu ñu toogee ay ay ay nit ay sénégalais comme man ñu ne lettre boobu am na vingt cinq même bu doon nit sa doon na mag mhm. kon ñu ne woon nañu taxaw seet la évêque yi waxoon ci 1923 jubbuloon sax daanaka ci jàngo ji laalu loon sax du woon un problème de l'église c'était un problème du Sénégal mhm. il s'était adressé au Sénégal dëgg la au Sénégal mhm. alors ñu ne nañu nañu seet nan la nañ koy or dañ lañ defee ba xel yooyu ak xalaat yooyu ñu delloowaat ko ci boppu nit ñi moo waraloon ñu évêques yi may ñu autorisation mandat dañoo bind ne may leen leen mandat pour yéen ngeen organiser forum boobu forum boobu ñu ngi ko def Thiès le 7 8 et 9 et 9 juin 2021 ku demoon Thiès amphithéâtre grand amphithéâtre bu université bu bu Thiès ñetti fan yëpp feesaloon nañ ko ñëpp bokkoon ci forum ba moo tax ma ne du mbirum jàng bi rek dëgg la un forum citoyen jële nañu nit fu nekk diine yi ci Sénégal ak kilifa diine yi société civile université ñëpp ñoo ñoo àndoon di def réflexion boobu réflexion boobu bañ ko defee mhm. lañu ci lañu ci dañ ci génnee dinañ ko jébbal évêques yi ci lu dul lu dul yàgg mhm. waaye doxalin bi nii la woon dañu ne woon nañu seet la nga xam ne suñu évêques yi jamoon nañ ci baaram en 1994 lan lañ ci def mhm. lan moo ci des ba ñu defee loolu ba pare ñu ne xalaat nañu ne ba ñu jëmoon ni xëy na loolu ñu mën koo ñu mën koo jot. Mm-hmm. donc vraiment nous dañoo bëggoon def vraiment une réflexion objective. Mm-hmm. et même si te pas des chrétiens seulement des musulmans boo seetloo sax même le l'ancien recteur de l'université bokkoon na ci modérateur yi. Mm-hmm. alors loolu yëpp dajeel nañ ko ci tënk ba daal gis nañ ne. même bu fekkee ne am na ay jéego yu ñu dox li ci des. jar na ñu takkaat suñu ndigg jogaat pour la taxoon ñu bind lettre bi mu ngi tuddoon euh, bâtir ensemble un Sénégal de paix et de justice bâtir mooy tabax mhm. xam nga tabax kenn du ko def ci benn bés donc ça veut dire que c'est un cheminement mmh. ensemble maanaam ñëpp a ko bokk euh, ci loolu am na benn laaj bu samp hmm. li tax ngeen indiwaat lettre 94 da ngeen jàppal ni lu ëpp ca la ebe gi digle woon defuñu ko moo waral ñu nekk ci situation bu ñu mel wala da ngeen jàpp ni la ñu digle woon am na lu ñu ci tàmbali woon def ba mu am njeexital bu positif donc lu ñu war a indiwaat la méngali koog jamono ji loolu mën cee génn exactement loolu la moo doon suñu démarche waaye dañoo njëkk seetlu ci point yi ñu téye woon wàllu économie mhm. wàllu wàllu justice et paix wàllu éducation mhm. jàngale mi mhm. ndax parce que évêque yi la ñu waxoon mooy jamono njooju euh, suñu jikko sénégalais yi da daan soppaliku te jëm foo xam ne neexul kenn mhm. te kooku ñu jàppoon ne njàngale mi école am na responsabilité bu mag ndax delloowaat nit ñi ci jikko yu baax yi mhm. kon yooyu lañ doon seet mais lañ ci gis mooy naam am na ay jéego yuñ ci ndox kooku vraiment il ne peut pas ne pas ne pas <laughs> le reconnaître mm-hmm. waaye nag am na lu des mm-hmm. lu des loolu nag ci la ñuy sukkandiku pour proposer évêque yi ñu jël ko en charge xëj na proposé nañu ko ñu bindaat beneen lettre boobu ñu bindaat beneen lettre maanaam renouveler lettre 94 bi mm-hmm. mais sukkandiku si la des voilà sukkandiku ensuite actualité bi mm-hmm. alors def nañu forum boobu euh, pare nag ci fii ak ay fan mm-hmm. dinañ dinañ ko jébbal def nañ acte yi parce que daanaka ñu ngi ci impression document yi ak yooyu mm-hmm. léegi bañ ko leen bi leen ko déposé bu boobaa nag ñoom nag ñooy seet nan lañ koy nag la ñuy bindee siiwal ko voilà euh, mais dama bëgg a laaj euh, bu ñu jëlee la communauté chrétienne mm. dans son ensemble nan nga seetlu implication sur les jeux politiques social et tout ça est-ce que yaakaar nga ni taxaw nañu taxawaay bi ñu war a def. waaw si ni Sénégal di doxe xam nga bu ñu nee Sénégal. Mhm. Euh, téeméeri nit yoo jël. Mhm. Euh, juróom yi ñooy ci catholique. dëgg la donc booy natt seen implication. Mhm. ba na nga bàyyi la xel loola. dëgg la waaw parce que mënuñoo am présence su. comme communauté boo xam ne moo nekkoon cinquante pour cent. mais boo seetloo Sénégal fu mu tëdd. ak bépp fànn boo ci mën a jël boo fa demee dañ fa fekk catholique. c'est vrai boo demee gouvernement bi dañ fa fekk ay catholique y a des ministres membres du gouvernement. boo demee assemblée nationale y a des mhm. boo demee ci administration au niveau le plus élevé boo fa demee di nga fa fekk ay ay ay catholique. Mhm. kon mel na man ni daal euh, euh, ni ñu tolloo ci réew mi toll nañ noonu ci. Euh, ci ci doyo bi doyo bi ñu. waaw ci ni dëkk bi doxee. mais li ci am mooy en 2007. Uh-huh. pour prolonger surtout laaju Babacar. en 2007 dañu génn ci ay élections législatives samp gouvernement bu bees. ñu gis ni ci jamono yooyu ci quarante ministres. Uh-huh. ñaar ba ñett ministre catholique moo ci amoon. waaw législative yi bi ñu paree député ci cent 150 députés ñeent kott moo ci nekkoon catholique. waaw jamono yooyu ku jiitu woon présidence chrétienne. Mhm. Théodore Ndiaye. Ndiaye bindoon benn lettre ni waa xanaa réew mi dafa amul ay chrétien. waaw ba ñu néewal ñu nii doole ci gouvernement bi ak ci assemblée bi. Mhm. ba mu ko waxee sax d'ailleurs ci lañu jóge mhm. ci ñaari ministre muy Innocence Ntap Ndiaye. ak Sophie Gladima Sidi. tabaat léegi si Sina jaata muy ñetti ministre bu ñu leen dolli. xam nga 2007 ak léegi boo ko dee xayma def na fukki at ak ñeent. waaw yow danga jàpp nii dafa am yokkute bu am solo ci présence chrétien yi ci bànkaasu réew mi wala est fa ñu toll woon lañ toll daanaka buñ koy nattable. Ah, am na am na am na yokkute dama koy dama koy jël damay mandargaal suma bopp. Hmm. man maay hmm. ñetteelu gouverneur catholique de l'histoire de Sénégal. ñetteelu gouverneur. catholique de l'histoire de Sénégal man. nest mais boo liimee tey ancien gouverneur catholique yi. Ah dem nañu juróom ba juróom-benn n'est-ce pas. boo jëlee administration. boo jamono bi nga koy nekk en 2005 ñetteel bi nga woon. waaw ñetteel ñaar donc 2005 ak léegi. waaw ñett dolli ci nañ ci. wala lu ëpp ñett. yu ah. nekk yu nekk gouverneur xam nga foofu am na avancement. boo jëlee gouvernement tey Sénégal gouvernement Sénégal tey ñaata catholique ñoo ci nekk. Mhm. mën na ñett mbaa ñeent. Hmm. Ah, mën na ñett mbaa ñeent kon. damay jàpp ni te te du nañu déggoo ci wax ji. Mhm. xam nga du du du beral loxo bu ñu war a defal kenn. dëgg kenn dara ci Sénégal. Mhm. Sénégal ñëpp a yem. warul warul nekk benn discrimination. politique voilà warul nekk quota. <laughs> quota ce question de quota. Mhm. ku yëngu ku am yëngu-yëngu buy tax nga dugg foofu. di nga ci dugg muy catholique. mérite la war a doon mérite mais monsieur le bu quota amul it. il y a le respect de l'équilibre national. Mm. waaw nga xamee ni dañuy xool euh, gox yi gox goxaat yi ñaata ñu jël mënoo toog par exemple def gouvernement boo xam ne amul. benn région géographique day am yooyu mais est-ce que également euh, teewaay bi parce que quand même c'est une communauté. est-ce ko sóoraale si bu ñuy tànn gouvernement. xam nga xam nga équilibre boobu. waaw jiite ñoo koy gis. Uh-huh. n'est-ce pas. man catholique damaa jàpp ne. Mm-hmm. lay tax ma nekk ci poste yooyu. su ma ko defee dinaa fa nekk. pour moi mon principe. Ah, c'est le mérite d'abord. c'est le mérite d'abord. c'est parce que bëgg teg nit ci place. Ah, parce que war na faa nekk te feesul place ba yàqute lay indi suba. moi je suis partisan du mérite. te xam naa ne. cadre chrétien catholique yi nekk Sénégal fu ñu mën a nekk parce que fu ñu mën a nekk bëri nañu de am ah, bari nañu ah, macha allah bëri nañu xëy na xëy na bëri wu ñu wax mm-hmm. wala seen wax ji mu ngi toll ci ni ñu toll ci lim mm-hmm. waaye service boo wër ci Sénégal nest pas di nga fa fekk ci poste responsabilité yi ay ay ay ay catholique waaw léegi lu weesu nombo yi ak cër yi ñuy séddale waaw ci engagement politique ci boppam kefe mm. en 2018 Mhm. dafa am benn kuréel bu ñuy wootee synergie chrétienne et citoyenne. waaw bu soññoon catholique yi. chrétiens yi waaw ñu dugg ci wàllu politique. Mhm. est-ce que boobaak léegi loolu am na njeexital. ma yokkal ko ni engagement bi am na. ma yokkal la ma maat c'est-à-dire yu mel noonu. pour compléter sa question en 1992. Mhm. le pape Jean Paul II. xam nga dafa ñëw visiter Sénégal Dakar. si biir visite bi dafa euh, kañoon nu ñu koy wax. Euh, ñaaxoon ñaaxoon waaw ah, <laughs> la communauté chrétienne. pour ñu impliqué wu ci activité sociale ak politique. Sénégal xam nga ne leen ngeen gën a taxaw. est-ce que loolu seetlu nga ni comme ni ko Momar waxee. waaw loolu appel boobu bu amoon solo la ndax bu ñu waxee suñu diggante ak yàlla rek euh, ñun catholique yi dañoo ragal politique. ah ñemewuñ ko ndax euh, lu ci am na yuy nekk ci politique suñu diine. Euh, seen i ngëm-ngëm seen valeur waaw mayuñu ko dafa dafa xaw a waroog seen i valeur xam nga xam nga xam nga dañuy ne comme même pour schématiser euh, euh, ku mënul naxaate mënul nekk politicien ba politicien politique naxaate la mm. dëgg la politique naxaate la n'est-ce pas mm-hmm. te ñun li ñuy jàngal mooy naxaate mënul nekk te boo te boo te boo seetloo kooku moom mën naa ko fee wax da ngeen seetlu jikkoo catholique yi nekk ci gouvernement baa ci leneen. seen jikko ci wàll woowu ma wax. dafay ràññeeku. pourtant loolu diine yëpp diine yëpp daanaka ah, loolu lañ digle de. am na ci ku ma wax ne. am na ci ku ma wax ne. Euh, man lu moom lu mu téye lay digee. Mm. catholique la responsable au responsable dans ce pays là balaa may digee damay téye. lu teew ba noppi. waaw comme ça su ma diggee nit ñi diggale nit dara de. wóor na man dinaa ko def nit ñi dinañ ko dinañ dinañ ko dinañ ko gis. kooku de mënul def politique. ak ah, pourtant politique il responsable il est haut responsable. te ñooñu ñi ko xam yëpp xam nañu leen lu mu la wax dina am. parce que du dig nit lu mu lu mu lu mu mënul te bëgg nga topp ci ginnaawam nekk mi tam du tax. mu dig loo xam ne bu bu ëllëgee dina ko wax ne yow yaa ma waxoon lii te defoo ko. looloo tax ngeen ragal dugg politique. waaw euh, bokk bokk bokk na bokk bokk na ci bokk na ci. mais ñun gis nañu itam nekk ni boo bokkul ci politique am na loo xam ne mënoo koo liggéeyal sa réew. fa ñuy dogalee. waaw fa ñuy jëlee yi yow doo fa bokk. xam nga xam nga ñaari kii ñoo daje. Mm-hmm. et c'est paradoxal. ñaari kii c'est une espèce ñun léegi on a pris conscience. on a pris conscience que effectivement. contribuer pour influer sur l'évolution du pays parce que li ñu li ñu suñu monsieur ñor yi sant. ci lettre boobu ay nit ñoo koy def. ay nit ñoo koy def ay nit ñoo xam ne gëm nañu loolu ñu wax te nangu nañ cee sonn kon kooku itam ça nous oblige à à l'engagement même bu fekkee ni ragal nañu politique nee nañu pour pour pour dégager la boue il faut tremper dans la boue. Mm-hmm. loolu tubaab yee ko wax. Mm-hmm. ak lépp lu ñu mën a gis ci politique. mais pour loolu ñu mën koo dindi. Mm-hmm. il faut ñu dugg ci. maanaam ban. waaw boo ko bëggee randal foog nga takk ci. foog ban ba voilà foog nga takk ci ban ba. Mm-hmm. li ñu li ñu sant ci lettre boobu ma wax. Mm-hmm. bañ ko bëggee dindi te ñun ñoo ci war parce que suñu njiit ñoo ko santaat. foog ñu nekk ci biir. kon waaye évolution boobu am. mooy wane ni de plus en plus effectivement. gaa yaa ngi gaa yaa ngi ciy dugg. Mm. mais est-ce que seen leader politique. Mm. en tout cas de la communauté ñi nga xam ni chrétien lañu wala yooyu. Mm. Euh, nekk ci politique bi ban rapport ngeen am ak ñoom est-ce que euh, dingeen ngeen xalaat ni ñii kat suñu communauté lañu mbokk donc war nañu ne dooleel pour ñu taxaw fi ñu war a taxaw. voilà loolu nag c'est c'est ça c'est très extrêmement important. Ah. parce que ñi ma ci ñi ma ci xam dem lay dem lay nettali euh, li ma vivre. Mm-hmm. benn jour benn suñu mbokk. nekk candidat nekk candidat député. nekk candidat député. waaw mais ñun la ñu waxoon ne ak ah, ñu ànd ak moom waaw la ñu bañ a ànd ak moom lim bokk ci ñun wax naa tax ñu ñu ñu jàppale ko jàppale ko. waaw donc cette solidarité. Ah. cette solidarité waaye nag solidarité am na contrepartie. contrepartie solidarité bi mooy yow mi ñu tànn. la tax ñu tànn la nga nekk ci boo ci nekkul ñu bala mm-hmm. parce que loolu lañu ñuy loolu la ñuy gëm. Mm-hmm. loolu la gëm kenn kenn deful politique pour loo amal sa bopp danga ne su ngeen ma falee dinaa leen defal lii ak lii loolu boo ko defee boo ko waxee ngir yàlla dog moo tax ngir yàlla dog moo tax amoo ci sa intérêt bopp yoo nëbb ci ci ci ci gannaaw mhm. bu boobaa solidarité boobu dañ ko am waaye bi ñu gisee ci yow leneen nag mhm. parce que est que solidarité boobu seetlu nga ko am na am na ci seen biir ci ci li ma xam de. ak ñi ma xam. ci li ma xam ak ñi ma xam. am na ci. Hmm. am na ci ndax xam naa ne am naa ci boo xam ne duma ko tudd. Hmm. waaye fa mu nekk responsable parce que dëgg si yàlla moom euh, fa mu génn te yemul ci ci ci ci yi. nit ñi bëgg nañ ko jàpp nañ ko. parce que jikko jamu leen woon. Hmm. jikko ju doy la. c'est déterminant pour nous vraiment ce profil là kon. war nañoo yokk. implication. voilà war nañoo yokk jéego yi. Hmm. mais nit ñi jël nañu conscience léegi mooy li ma la wax rek ban boobu boo ko bëggee. Hmm. <laughs> li ñu gis ni ci politique bi ne baaxul. Hmm. te ñun ñu koy wax buñ ko bëggee dindi nag foog ñu dugg ci biir. voilà loolu mooy. expliqué mais est-ce que nekkin bi au-delà des institutions de tout formel est-ce que nekkin bi dëkkandoo bi ak jullit yi gis ngeen ci seen seen bopp yéen. en ah, tant que boobu nag boobu nag wax dëgg si yàlla. li ñu li ñu am ci Sénégal valeur boobu. parce que parfois aussi comme wax nga ko léegi doo leen wax peut-être que am na ay frustration am na yoo xam ni ci àqu dëkkandoo manul ñàkk. mais yéen da ko téye parce que peut-être seen yar seeni valeur moo tax wala bañ a yar moo tax am day am hmm. gis ngeen fi bëgg ba ku fi waxoon ku fi tuddoon loo xam ne neexuñu. dëgg la ñëpp ñu ñu génn ci mbedd mi. Hmm. xale yi génn ci mbedd mi fàttaliñu kenn loolu. Hmm. am na benn njiitu réew boo xam wax boo buñ waxoon loo xam ne mu metti woon. chrétiens yi. waaw mais ca ëllëg sa tout la jeunesse chrétienne de Dakar est sortie. waaw manifester ko waxoon ci mbirum statut yi. Eh. voilà mu ngi ko waxoon ci mbirum. ci mbirum statut nañ ñam foofu rek. voilà ci mbirum statut yi daal lu mu waxoon. bañ a xam nga xam nga ñun dañ ñoo jàngal ne. Mhm. Euh, sa mbokk bu defee lu lu lu dul noonu da ngaa dem wax ko ko ne nga def du noonu. Mhm. bu delluwaatee nga dem ci ku ko jege nga wax ko ne neel diw la mu def jaaduwul. bu ko delluwaatee nga jéebaane ko ci mbooloo ma. waaw parfois c' est pas parce que coowuñu que. ah a ah, pas de waaw non déet parce que waxuñu. parce que ñun suñu suñu njiit yi li leen li leen li ñuy gën a def li ñuy gën a def mooy wax ak njiit bi. xam nga mu suñu président de la république bu dajee ak yi la koy évêque yi di wax. Hmm. ñu bëri xamuñu ko. dëgg la waaw. te lépp luñ ko war a wax amul luñ ci ruus wala jëkka ah, dañ ko kilifa waxtaanu biiru néeg ngeen def ak moom waxtaanu biiru néeg te parfois moo gën a efficace moo moo moo gën a efficace gars yi day mel ni boo waxul Sénégal yi dégg ko waaw mais un peu mais boo seetloo seetloo seetloo barki démb la mujjee <laughs> ci situation situation politique réew bi mm-hmm. n'est-ce pas monsieur Benjamin Ndiaye def na déclaration démb mbaa barki démb lu am solo am na ci Sénégal imam yi waaye monseigneur yi. kudis ak jàng yëpp daje dëgg la def une déclaration commune. te te dalul tey 1994. boobu boo ngeen ko seetloo archive yi. am na benn déclaration bu bu yi ak ak ak évêque yi defoon ci situation situation situation réew mi. Mhm. maanaam kilifa bu wax bu waree wax rek ci waxtu bu waxee la ko waree waxee. waaye est-ce que loolu rek lu ñu war a làbbali. parce que c'est vrai am nañ sax ñu ni. Hmm. Sénégal boo ko xoolee ba xool weesu nañu dialogue islamo-chrétien. waaw ndax ni ñu duggante. waaye ñu seetlu nag bu yàggul xam nga mbirum statut boobu. waaw kilifa boobu yëkkati woon. xam nga indi woon na euh, jiixi jaaxa. bu yàggul gis nañ lu xewoon jooyin. waaw nga xam ni dafa am benn kilifa diine. bu yëkkati ay kàddu wax ko. ba mu jur xët-xët. ca catholique yi ak jullit ya fa dëkke waaw si loolu. waaw xam nga loolu am na. waaw bu yàggul itam gis nañu. Hmm. école bu mel nii benn école catholique. Hmm. Hmm. waaw boo xam ni tere woon nañu seen i élèves yi. ñuy muuru di fa jàng. ba mu indi tuuti jiixi jaaxal. waaw est ce que yaakaaroon ni jot na. bu ñu seetloo yooyu. ñu euh, gën a labbaliwaat. mu bañ a nekk rek kaw. mais nag au niveau de la base aussi. gis nga la lettre de 1994. laal na les dérives religieuses de tous bords. qui constituent une menace. ci cohésion sociale bi maanaam fu nekk rek looloo nga ca loo jàpp ne jub na rek danga bàyyi xel luy luy luy luy yàq loolu safaan wi waaw lu koy safaan ndax ndax seytaane hmm. seytaane ci foxat lay dugg hmm. seytaane ci foxat le diable est dans les détails voilà <laughs> le diable hmm. loolu nga waxee nag mooy détails yi nga xam ne saa amee dañoo war jox faj ko waxante ci ci suñu biir léeg-léeg bu ñu gisee ci réseau sociaux yi dañuy dañ ciy dégg loo xam ne te duñu du diggante catholique ak musulman mm. rek ci bépp fànn donc yooyu nag mooy menace yooyu lañu war a jéem a gaaw a identifier mm-hmm. buñ ko identifier li ci war pour ñu faj ko ñu teel cee jóg am na la la la cohésion bi ñuy wax <laughs> elle n'est pas parfaite elle n'est pas totale <coughs> am na cas yoo xam ne boo fa boo fa boo fa boo fa boo fa duggee da nga da nga mhm. da nga keroog bi ma benn waay waxee ñuy waxtaan ba ñu yegg ci ñu tere woon voile mhm. mais ma ne ko mais am na ci ci Sénégal ci biir Dakar école privée yoo xam ne boo voile wul doo fa dugg mhm. lépp waxtaane la la ci say jullit doo fa dugg n'est-ce kon nag ku ku ku condamné ki tere voile de la même manière war ngaa condamné ku imposé. Mm-hmm. voile ku imposé voile te la te am na loolu am na xam nañ ko am na fii ci Dakar école yoo xam ne boo voilé wul doo fa dem. Mm-hmm. alors boobu nag. doomu catholique bu fa bëggoon jàggi xam nga loolu blocage la ci moom. nest mm-hmm. yooyu yëpp lu ñu lu ñu. waaye nañ sant yàlla. c'est-à-dire sew sewaan yooyu. la ñu war a rek moytu. voilà mais comment teg rek la ko ci dal mais wax dëgg yàlla Sénégal la ñu bu fekkee. au niveau ci kaw. wax nga ko léegi église bi kilifa yi ñu ngi gisanteeg jullit yi. imaam yeeg yëpp di waxtaan peut-être à un certain niveau mais au niveau des populations c'est vrai que am na ngalax bi la fameux ngalax am na tànku tànku xaru tabaski tout ça mm. mais est-ce que waruñoo gën a wàcc information sensibilisation bi au niveau du bas moo tax ci suñu forum bi ñu jiital ci école ah. l'école comme instrument de promotion mm-hmm. des valeurs parce que loolu tàmbali na maa ngi fàttali ne ko image ba ma duma ko fàtte mukk tam ma nekkee booru Kaolack ma demoon benn jour Kaolack génn ci heure heure heure école ñuy ma gis ñaari xale yu jigéen ñoo tolloo kii mu ngi sol voile kenn ngi mu ngi sol croix. croix waaw te ñoo ah. ku ci nekk téye moromam ci loxo. ça c'est une image. n'est-ce pas mm-hmm. xam nga image boobu ñooña seen doom yi ak seen sët yi. Mm-hmm. bu ñu màggee ak loolu. ak loolu ak jikko jooju. voilà mm-hmm. te moo tax école. am am am solo mm-hmm. tuutee. du ma waxee école de. du école du du école bâtiment bi ngay dugg ni mm-hmm. maanaam je parle de l' de manière générale. de l' institution. voilà te benn ci ci ci lettre 1904 évêque yi nee nañu la famille njaboot nañu delloo cëram. cëram. Mhm. ci yaru. ñoom Fatou Sow Sarr sax. xale def nañ ko combat. <coughs> waaw ni il faut que ñu restaurer famille bi. waaw comme cellule de base. voilà c'est la famille parce que bu tumurankee rek. Mhm. njaboot gi tasaaru. voilà donc c'est une question d'éducation. Mhm. d'éducation éducation boobu buñ ci teelee jóg xale loo ko yaree rek. Euh, moom lay moom lay màggee. te ñu ciy ñu ciy moytu xam nga ñu ngi jëm ci ci ci Noël. waaw Noël waaw. ñu ngi jëm ci Noël Noël euh, feetu xale yi la ku ci nekk da ngay bëgg a neexal sa doom. dëgg mais même mais même cadeau yi ñu ñuy jox suñu doom yi nañ ci def attention. ah oui parce que am na ci ñoo xam ne ci la ñuy jaaree di gëmloo suñu suñu suñu suñu doom yi yenn yi. comme yan noonu. boo boo jëndee boo jënd boo jëndalee sa doom cadeau fetel waaw waay fetal. loolu loo ko jàngal. yaa ngi koy kii si violence. Mm. waaw xam nga kooku bés bu gisee ñuy guerre. du yaakaar ne normal bi. mais am na reportage bu ma ci dégg tey. Eh. mais jaaykat yi nee nañ lu jëm ci fetal ak euh, engins yooyu char de combat. Eh, eh. nee nañ daal doxatul. nit ñu léegi ay jeux d'intelligence ñuy gën a jël. <laughs> donc nit ñaa ngi koy bàyyi xel. mais fàttali leen ko am na solo. am na solo waaw am na solo. am am am na solo. Mm-hmm. donc. Euh, éducation bi daal mooy mooy. mooy lépp mooy base bi waaw mooy base bi. lépp looy xeex. xeexee ko foofu. ci suuf waaw. foo boo ko xeexee foofu mën nga cee am. tabax tabax bu amul fondement. du tabax mooy. mooy fondement bi te ci lettre 94 yi. Mhm. non seulement évêques yi wax nañu jàngale. Mhm. mais dañu ne état bi wax na dimbali njaboot bu nekk fa mu bëgg ak na mu bëgg doomam mu jànge bu mën faa jàngee. loolu évêque yi wax non seulement war nañoo euh, développer éducation mais war nañoo fexe ba képp kuy sénégalais su ma nee soo soo nee suma doom lii laa bëgg mu jàng ak nii la laa bëgg mu jàngee loolu mu mën koo def loolu responsabilité état bi la. dafa am solo démocratiser. l'accès à l'éducation voilà, voilà. c'est important tout à fait. mais Noël bi ñu nekk. on est à la veille de Noël ah. je crois que <laughs> euh, ban message nga gis ni euh, en tout cas la communauté chrétienne moom lañu ñu war a joxe déjà entre yéen wala envers également sénégalais yi ngeen dëkkandoo. waaw xam nga symbolique Noël. Hmm. da ngay mel ni par exemple jëla nit koo xam ne dafa am jaxle. Hmm. ba mu yaakaar ne suma jaxle bi de diw bu ñëwee mën na koo faj. am ko koŋ-koŋ ci buntam mu ni kooku lan la muy diw moomu mu doon xaar mm-hmm. gis ngeen màndarga boobu kon kii ñëw noowel mm-hmm. moom la ñu doon xaar ba àdduna dund joxe amee ba léegi pour bu ñëwee mooy musal àdduna mm-hmm. n'est-ce pas donc ça dire que c'est une grande fête c'est la fête de l'espoir et de de l'espérance l'espérance jaaree ko ci xale bu xale. Mm-hmm. xam nga xale euh, suñu suñu suñu ki ñu gëm Yeesu Christa ah, moo daan wax nit ñi laissez les enfants venir à moi xamal leen ne euh, dëgg mu ngi ci gémmiñu xale gémmiñu xale. Mm. xale mënul naxaate xane xamul njublan mm. maanaam l'enfant est pur. Mm-hmm. l'enfant est pur donc pureté bi nekk ci ci ci mm. mooy message u Noël ñëpp na mënuñoo pur maandoog yëpp li ci war mm-hmm. waaye ku ci nekk war naa fexe ba mu mel ni xale mm-hmm. kooku mooy l'essence du message de de de de de de Noël mm-hmm. n'est-ce pas cet enfant pur innocent xamul tappale c'est-à-dire raxasaat jikko yi. voilà mel ni ku delluwaat xale. voilà mel delluwaat. mel ni ku delluwaat xale. voilà mm-hmm. kooku mooy. Mm-hmm. message yu. et c'est un message toujours d'actualité ah. <laughs> toujours d'actualité. toujours d'actualité te suñu suñu wax ma sax suñu réew mi àdduna yëngu na yëngu boo xam ne soxla nañu ñuy delluwaat ca ca ca yooyu xam nga yàlla mi ñu sàkk. Mm-hmm. lépp lu yàlla sàkk nit a ko ci gënal. ndax ba mu sàkk àdduna yëpp nit la ko may waaw lépp lu yàlla sàkk nit ka ci nit a ko ci gënal donc nit ñooñu lépp lu ñu war a def war nañoo roy li ñuy wax euh, l'homme a été à l'image de Dieu mm-hmm. nit ki euh, nataalu yàlla la diggante nit ak ak yàlla dafa mel ni suma photo ak man mm-hmm. waaw mm-hmm. mënuñoo mel ni yàlla waaye war nañoo nekk nataalu yàlla ci ci ci ci ci suuf à travers suñu témoignage suñu suñu ni ñuy def ak suñu suñu suñu mbokk yi. ça doit être l'essence de notre existence sur terre. Mmh. c'est ça loolu mooy principe bi. waaw <laughs> voilà mais mais mais dañuy dugg un peu si actualité parce que. Euh, yàlla dimbali nañu ba dañu am invité boo xamee ni. Mm. Euh, dafa am euh, njaaxaanaa yu bëri. Mm-hmm. Ah, yoo xam ni fu ñu ko laal rek mën nañu am yaakaar tontu bu leer. Mm-hmm. barki démb xaw ma démb am na conseil présidentiel. waaw xam ni le président Macky Sall def na ko. Mm-hmm. c'est un sujet d'actualité sur nu ñuy répartir. recettes yi du pétrole ak nu ñu koy encadrer xam naa ni am nga ci écho wala seetaan nga ko nan nga xalaate cette initiative waaw lu ñu lu mënutoon a ñàkk la xam nga bu ñu seetloo suñu suñu référendum bu mujjee bi. référendum 2016 à travers la loi 2016 qui a consacré les droits des des citoyens sur le ressources naturelles maanaam ressources naturelles yi. askan wee ko moom. état bee ko moom askan askan wee ko moom du état bi. Hmm. loi bi dafa ne. Hmm. état bi ak collectivité bi ñoo war a sàmm alal jooju ba mu doon njëriñ. ci askan wi maanaam état beeg collectivité dañ koo dénk loo xam ne askan wee ko. ko moom moo ko moom. dëgg la ressource askan wee ko moom. kon nag liy génn ci as ci ressources naturelles yi ci askan wi la war a dellu pour mu mën a dellu ci askan wi il faut mu am ñaari mbir lu bon bon. Mhm. transparence kenn warut umpale. n'est-ce pas lan mooy génn ci pétrole bi. ak bu génnee fan lañ ko war a dugal c'est ça la transparence mm-hmm. <coughs> sénégalais boo yee boo ko laajee pétrole biy génn Sénégal fan ñaata la ak fan la war a fan lañ koy dugal war na koo xam c'est ça la transparence parce que mm-hmm. ki moom mbir. askan wi ko moom. boo ko téyelee euh, mbiram kay war nga koo xamal mbir moomu. Ah, ñaareel bi mooy équité. ku ci deeg la nga war a jot ci alal boobu. nga jot ko ci te yëmul ci ñuy dund tey parce que su ñuy wax développement euh, durable. maanaam ñu nekk fii tey nañu dund waaye ñaay ñëw ëllëg. ñu sóoraal leen ñu sóoraal bàyyil leen. boo loo xam ne. Euh, bu ñu bu ñu fi nekkee dañ ko mën a dundee. bu ñu jëlee pétrole bi pétrole bi luy jeex la. dëgg la. dëgg mais même bu fekkee ne euh, dina jeex. jamono jiñ koy génnee exploité la cay génn war nañu cee wut sàkk boo xam ne dañ koy bàyyi pour <coughs> ñay ñëw ëllëg am lu ñu fi lu ñu fi fekk mhm. leneen li mooy euh, léeg-léeg euh, président tudd na ko sa ñuy wax la malédiction de du pétrole la malédiction du pétrole la malédiction du ressource warul nekk bu naree nekk malédiction bu naree nekk njaaxum Sénégal. dañ mm. ko bàyyi fa mu nekk. dëgg la jarul ñu ko exploité bu fekkee bu ñu exploité pétrole bi day tax réew mi. Eh. ñu bàyyi ko fa mu nekk parce que dootuñu amal euh, dafa am phase bu ñu nekk. Mm. c' est vrai ñu ngi si dégg bi parce que 2023 peut être bari bari li commencé génn. waaw euh, mais en amont. Mm. Sénégalais yu bëri dañuy joytu la manière dont les contrats on été signés. waaw xam nga loolu tamit euh, est ce que transparence yaakaar nga ni amoon na foofu. su amul transparence rek ah. baaxul ndax kay signé contrat bi il l'a au nom di peuple donc la nga signé bu méngoowul ak la peuple ba bëgg la nga signé du génnee lu am njëriñ njëriñ moo tax itam kooku ñu nekk ci nguur gi ñoo ko ñoo ko moom un contrat hmm. ci turu askan wi na doon loo xam ne day jur njëriñ ci ci askan wi. parce que boo ko deful rek bàyyi nga la askan wi santoon. waaw am na beneen mbir aussi aussi boo xam ni vraiment war nañ taxaw. xam nga yéen catholique yi. da am kuréel bu ñu wooyee Caritas. waaw Caritas na ci li muy jóg. Mhm. ñu tollee ci jamono yu jafe. mu jël ay ndimbal yóbbu ko ca soxla. waaw loolu nag day indi laaj bu jëm ci ni ñu yoree alalu askan wi est-ce que yaakaar ni am na ay institution ay kuréel yoo xam ni wax dëgg yàlla xaalis bañ fay def <laughs> xëy na xajoon na ci askan wi et jot na peut-être état surtout ko yow mi nga xam ne xamoon nga état que ñu xool nu ñuy defee foofu ay économie pour mu yegg nag ci nga xam ne ñoo ko soxla muy néew gi doole yi def ko ci hôpitaux yi def ko ci dispensaires yi def ko ci lekkool bi def ko ci yu mel noonu yaakaaroon ni war nañ taxawee noonu xam nga euh, un état lépp lu ngóor di def jeexital ba dafa war nekk njëriñu askan wi mm-hmm. le service public c'est ça que nguur gi il faut mu am lu mu mën lu mu war a def lu muy def bet bu ci jeexital ba bépp sénégalais bu jog am lu mu soxla. ñu mën koo fajal soxlaam. Hmm. ci fu ko gën a jegee ak ci fu mu gën a gaawee. donc état mënul bañ a investir il faut état. investir waaye la ñuy nattee njëriñoo investissement boobu. Hmm. la muy jur lañ koy méngale. mooy njeexital bi mooy njeexital bi. parce que nag état bu fekkee ni mu war a taxawee taxawewuñu ko. Hmm. ci li muy séddalee as euh, alalu askan bi. ba yéen sax ngeen créé kuréel pour di ko wutu. ci léeg-léeg bu askan bi sonnee xam nga doy na waar. doy na waar de. loolu ñu war a xoolaat la xam nga ñooñu euh, euh, il faut ñu nangu ne euh, état mënul mëtal yëpp. Hmm. n'est-ce loolu moom xel mën na ko nangu mën na ko hmm. ndax ñu ngi ci pays sous-développé suñu état bi bu ñu xaaree ci moom lépp mu ñu ne kon képp ku fi yeewoo si loolu mooy mooy tax société moo indi société civile. Hmm. la société civile dafay war a nekk pour mottali. la nguur gi waroon def. te xëj na mën-mënam mayu ko ko. loolu la waaye la nguur gi mën a def na ko def bi ñëpp gis ne nguur gi de def na ba tële. Mhm. def na ba fa mu mën a yem bu boobaa ñu yokk ko ci waaye bu ñu bëggee ñi ñuy jàppale gën a sawar na fekk ñun nañu def lu ñu lu ñu mën ba ñu xam ne def nañ ko. loolu mooy équilibre boobu boobu war a am la raison d'être de État c'est la satisfaction. des citoyens des citoyens. Mm-hmm. mais yàlla def na nekkoon nga. directeur général de l'administration du territoire. waaw je crois 2014 nga ko nekk. waaw 2013 ba 2016 ba 2016. waaw euh, nan nga seetloo parce que moom a wax na léegi équilibre nan nga seetloo équilibre bi au niveau euh, de euh, en tout cas de l'espace du du Sénégal par rapport ak gouvernement parce que yow daanaka yaa jiite woon gouverneur yi. donc doon nga am information si li xew si gox-goxaat xam nga boo dégloo ñuy wax équité territoriale xam nga nekk na loo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy tudd mhm. léegi euh, ku dëkk ci Fongolim bi mhm. la mu soxla war na ko mën a am na ko ku dëkk point E mhm. euh, di amee damay jox fu may jàngalee ci dama leen di jox exemple euh, la justice la justice par exemple cour suprême du Sénégal mu ngi fii ci Ndakaaru waaw pas te ña soxla cour suprême ñu ngi fale eh. ci fongolim bi mm-hmm. kon injuste on crée inégalité boobu ñuy créer ci diggante citoyens yi loolu jaaduwut mm-hmm. boo jëlee éducation euh, euh, keroog dégg naa benn responsable éducation bu wax ne boo sogee génn war a dem jàngale yi da lay envoyé ci mm-hmm. région yi mm-hmm. boo fa amee xaw ma trois ans nga nga mën na nga mën a ngay dellu mm-hmm. mais kooku c'est créer l'illégalité l'illégalité entre les citoyens ndax xale yi nekk fa sore ils ont besoin ils ont besoin d'un bon mm, enseignement expérimenté waaw ils ont besoin d'un <laughs> enseignement waaw euh, boo jëlee médecins yi ku ñu affecté fu sore n'est-ce pas ne mënoo faa toog tàng naa nangam nangam mais citoyens yaa fa nekk waaw li waa Dakar am moom la ñu soxla kooku mooy équité équité territoriale te loolu dem na ba ci investissement. Mm-hmm. investissement maanaam eh, investissement yi Sénégal di def defa war a équilibré région bu nekk. la la mu méngool war nañ ko koy jox c'est ça l'équité léegi lan nga seetlu euh, ba bi ngay jógee à la tête euh, de la de la Dagat euh, mm. est-ce que investissement boobu équilibre boobu gis nga ni autorité yaa ngi ciy jéego. Ah, waaw am ah, ñu ngi ci ñu ngi ciy eh. ñu ngi ciy jéem. ñu ngi ciy wax dëgg yàlla moom il faut que on est ab parce que bu ñu le concept d'équité territoriale. foo foo foo dem léegi ñu ngi koy ñu ngi koy tudd. Mhm. créé nañu ay comme le PUMA. Mhm. PUDC. yooyu lu li tax ñu créé leen mooy lépp lu ñooñu euh, soxla mhm. ci liy yombal seen dund. mu mën faa mu mën faa yegg mhm. dafa fekk ne euh, gap gi dafa bare bare ah, boo xam ne déséquilibre bi déséquilibre bi entre ndax parce que dëgg si yàlla euh, dañoo jàppoon ne xëy na bu lu pendant longtemps Sénégal Dakar la yem mhm. nest pas cest colon yi ni ñu yore woon réew mi waaw <laughs> yemale xéewal yi ci li ñu woowe woon les quatre communes waaw Dakar Gorée Saint-Louis mhm. ak Rufisque bi ñu ñëwee jël nguur ñu ñun. Mhm. loolu la ñu yemoon. c'est-à-dire lu bëri citadins yi ñoo koy bénéficier wu. waaw waa àll bi dañ leen koy xaj. loolu nag équilibre bu ñu war a rétablir la. voilà président de la république am na ci programme. <laughs> waaw muy euh, dispa les disparités géographiques. Euh, et sociales non non am na programme. Mhm. xam nga dañu nit ñi dañu gaaw a gaaw a gis effet. politique publique yi tal bi waaw njeexital bi nit ñi dañ ko dañ ko gaaw a gis. Eh. ndax damay jël. Euh, l'autoroute autoroute à péage. Mm-hmm. boobu lay jël léegi ma joxe comme exemple. bañ koy def. digg lan lañ ci waxoon. Mm-hmm. n'est-ce pas. tey tey nañ ni mënut woon ñàkk. waaw <laughs> léegi ñu ngi ci bu amul woon musiba am. <laughs> waaw ñu ngi ñu ngi ci terre bi. gars yi gars yi ku ci nekk mu ngi mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci wax lu mu ci. waaw mais terre bi xëy na nag doxalin bi la. waa projet boo xam ni wax dëgg yàlla dañuy xaalis bi BRT bi ñuy wax. Mhm. BRT kenn mënatul circuler biir Dakar ndax BRT bi. Mhm. nit ñaa ngi am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg rëy seen bopp mais BRT bi bu sottee. xëy na mu am yu bëri yu mu saabu coono jeex. coono yu jeex ko dañ ko faaj. léegi Babacar bu ñu ñëwaatee un peu ci sa jaar jaar. surtout ak li nga xam ni moo gën a tax sax ñu invité la. administration territoriale. dëgg la li nga xam ni topp na ko ci fan yi. Euh, laaj bu njëkk bi may jagleel ci loolu. mooy yow bañ lay nommé gouverneur Ziguinchor. en 2005. yaa ngi fa utu woon Mame Biram Sarr. yow ngay séeréer. Mhm. moom muy séeréer nga wutu ko. waaw ki fa nekk tey jii. Mhm. géej juuf la tudd moom it séeréer la. séeréer la waa est-ce que ci nomination gouverneur Ziguinchor Casamance. Mhm. dañ ciy sóoraale le cousinage à